Ali moo invité Macky Sall département Kaolack ker la Macky Sall ne ma ker lay dooru gis Saloum. kon yow na ba lab méngé moom Macky li muy def jëru sama ñëw la méngé na ma na ma ne rek fii laa ko bëgg ci Sine Saloum rek. Hmm. te ñu ne Malick Guèye woote rek mu xool. waaw ah, baax dama ne benn nit mënoo gañee Kaolack Kaolack département Kaolack commune. te jaarul ci yow te Malick mii bokkul ci équipe boobu mëntu nekk suñ ko jéemaatee dañuy ñàkkaat bu gën a doy war la gën a ñàkk pare naa pour loolu nag. moo ko tey ah, mais comme wax nga ba. sonn bay baa bu dundee la. dem ah. nga leen bàyyi fii nga dem ci. opposition bi rek am na message bi leen jox. Hmm. am na message bi ñu jox message bi liir. bu nekkee nag yomb day mën a xam saafara si. <laughs> loolu am na solo. Hmm. rawatina euh, nag li ma gën a encore. Hmm. ku ma déggaat encore ku mel ni Mimi Touré mii ñu ne leen sànni. ñoom Mimi Touré. ñoom particulièrement Mimi Touré Mimi Touré fere naa sax pour président man maa ngi dugg ci ni freinage la pour président lu mu dugg rek bu ko Sénégal yi bëggoon sax bañ ko luñ ne Mimi Touré ko jiite ci Sénégal luñ ne Mimi Touré ci teg loxoom Sénégal billaahi wallaahi bu ko Sénégal yi bëggoon sa bañ ko ya xoolal dafa duggul ci Sénégal yi yow kan la mi Touré dimbali ci Sénégal. ah ay nitam. dama la ko laaj ñu ko xam dama la ko laaj. Mimi Touré ban base fan la base nekk ci Sénégal. Kaolack ak Grand Yoff. du Kaolack kay Grand Yoff kay lañ ko fa génnee du Ka euh, du du Grand Yoff Grand Yoff ay gétt lañ ko ne abal ñu Kaolack moom sax dama ne. dama ne président na xoolaat na xoolaat boppam moom la Sénégal yi bëgg. même bu amul moom la nit ñi bëgg Macky Sall particulièrement kenn bañu ko. Mimi bu amul base quand même xam nañ ne kàngam la waaw nag nañu abal ban kàngam la bu mag la ban ban intellectuel. liggéey na fi ba liggéeyal na ONU. liggéey liggéey la. ONU. waaye waaye ni nomination kooku am na ku ko ëppale ba nga fa demee taxul nag nga mën a seeree seeraas yombul ah. nga nekk ci kanam nit ñi mën a pressionner nit ñi nit ñi mën la wóolu mën la bëgg mën la yombul ci nit ah ci ànd moo bëri. ma xam daal mooy. Mimi Touré moom fii du woon sa xarit. ma ne waaye mu nit nag mën a nekk say sa xarit soo mu nekk sa noonu rawatina politique waaye li ma gis ci moom nag moom ambi moom dafa am ambition présidentielle. kon li ngay wax li ngay wax ci moom est-ce que du waxu politique la kon. déedéet samay moom xam na ma. président ci bopp moom xam na ma xam na ne maa ngi dund ci lobi yooyu maa ngi dund ci loolu. Hmm. maa dundu ma ci loolu tey dund ma ci loolu suba. baax na d' waaw waaye bu ma demee ne ba gis ne <laughs> ñii ci ñàll lañ jëm ñii jëm ci xàll ba sànni jëm ci ñàll jëm ci xàll ba gis nga président <laughs> soxnaam rek li ko liggéey ci réew mi war na ko a falaat. baax na waaw ko falaat. mën na ko falaat rawatina hmm. président de la République. jeex problème bu mu am. Hmm. moo ko teg boppam problème bu mu am. Hmm. li lobbykat yi ànd ak moom ñoo ko teg ko demee Pape Samb moomu nga xam ne. Ah, nekk ci biir lux lux yi di def yoo façon ma ma ko xool ba yàgg ma ma ree quoi ma ne waaw xanaa kii xanaa kii président xamul kii ah, yow koo xam ne yow téye leese di dagg rek yow sa intérêt bopp rek ngay dox ah, yow daal ku yorul milliard doo wax ak moom ku yorul million doo wax ak moom ah. ah jàpp nañu di leen euh, ku la oo téléphone nga ko kooku war naa jege président de dafa am ñoo xam ne du ñoom du ah, matière bi nañu yaatal daal yaatal bi am na solo waaw président dafa am ku ko war a jege. am ku ko wartu jege.